ربي على الهدى deve me escutar aqui. وشكرا تبارك الله en occasion fekk li ñu tuddee xew-xew ñu judd ci ñoo xam imam si xam ne du xew-xew ndax lu xew day xew waaye moom léppam day xew fa tabarakallah ñu jublu ci adduna boo xam ne ku ne xam ni mu mel ci ay crise yoo xam ne ñoo fees dal ci adduna dafa occasion yi occasion la pour ñu duggaat ci dundam moom ko la xam nag pour ñu jël ko ay solution pour mën a solution yi defe naa moo tax ñu wax kenn central bi moo wax ma jël bi la richesse de la vie du prophète Seydina Muhammad moom nag dëgg naa kenn mënu ko jeexal waaw nag géej la waaw nag joxul ilmi ñu ci teg ñu ngi am na ko bëccëg wa am na ko xëy xalq yal na yàlla taas ci barke ko defee tey nag ñu ñëwaat ci beneen thème gannaaw ba ñu fàttali ne thème mu jëm bu ñu ci delloon ci sidq mu nekk jikko boo xam ne def naa mooy baax bu lépp meññeente yi jóge nag ci sidq bokk na ci li ñu war a waxtaane tey ñu dellu ci al azza wala azama bon thème mu tey bi يتجلي في عصر دم بدون دم بعدين ولم يكن رمضان بسبب أستاذ محمد لم لو ممكن لا يصح تاني ولا بريزان ذاكرة وعمل زيد ورحم جبل حسن المستقبل وإذن يتوقيت ورمونيت منيتنا من يالسان من سنبرا yal nañu yàlla saxal ci bëccam yal na yàlla mottal yéene tabarakallah kat yi di gudd li am solo ci moom lay jóge yal na sa lam ñoom leeral lam ñoom ba lépp lu war a génn ñu mën ko génn te bu génnee yàlla na ko taataan te bu jóge ñu mën ko jëriñ parce que kat yooyu dañu doon sa sa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العزة والانتباه صفة لازمة لكل عظيم من العظماء والصلاة والسلام على إمام العظماء الأعزاء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيل كشف الغمم إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من نيو ci ay sang yu góor ak yu jigéen ci ay زيارة ñu leen ziyaara leen ndokkeel rawatina itam tabaarakallaahu jataay bu tedd bi ñu nekk di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi ki nga xam ne moo war a lépp am mooy ki nga xam ne moo wuutu ki ñu war a waxtaane tey monsieur Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Ahmed yàlla ko yàlla sàmm yàlla aaral te yàlla dugal ñu ci biir kaaraange ci teg itam tabaarakallaahu sunu capitaine imam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum Moustapha na yàlla sàmm ko yàlla sàmmal ko te yàlla mottali yéenéem ci ëttu kilifaam ah, gannaaw gi nag ñu ziyaara waajur yi fet yépp responsable yi maa ngi gisante sunu waajur di sunu responsable ci wàllu organisation di tonton Lamine ñu koy nuyu di ko ziyaara di ko wàcce wàcc waaye di ziyaara itam mbooleem fet père ak mère yi nga xam ne tabaarakallaahu ñoo fi teew yëpp ah al ustaaz Abdou Aziz ah ñu ngi koy ziyaar naa ustaaz mo Mouhamed ni mu ubbee ak mu présenté thème yi ku ko dégg xam ne bu continué woon it tabaarakallaahu mën na def ba mu jeex sëriñ bi daara ji mooy ku ne rek ci njaboot yi nga xam góor wala jigéen bu ñu la joxee tem man nga ko def ci li mu gën a rafetee loolu nag moom la ko yàlla jagleel wax dëgg yàlla yàlla na ko ko yàlla sàmmal te yàlla saxalal ko ko ah xam naa benn gag-gag rek la ñu am muy géej ku ñemewul ndox boo ko bëggee xuusloo ci géej wutloo ko ci ay ay duraat ay ay ay ay dina dina dina xaw a jafe sunu maam Cheikh Seydil Hadji Malick alayhi ridal Malick bi muy bind xilaal zahab dafa am bayt boo xam ne xam ne yonent bi sallallahu géej la jikko yi ko yàlla ràngaloon jikko yooyu nag bi ko góor gi bëggee indi ci miimiye bi muy xilaas garab bi dafa wax ne yaa raisa albaxri lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ala min aljalal te wurusu dur ku ko bëgg kuy xuus du ci jot da ngay nuur te ñun ñemewuñu ndox te yonte bi géej la waaye comme oustaz bi ci sama wet bu ñu bu ñu bu ñu kii rek mu leeral lépp incha allah ah thème central ko dégg daa xam ne am na fu ñuy jëm fi ñu jëm mooy adduna bi ñun ñëpp ñoo tegaloo suñu bët li fi xew crise yi ñuy dund mu dëppoo woon ak li xewoon avant yonent bi sallallahu alayhi bi ñëw crise par crise xam nga wax crise yi taxu ñuy jóg mais problème yi am ci àdduna bi ñëpp ko ñëpp ci teg seen bët fi ñuy jëm nag en tant ndax sëriñ bi comme moo représenté yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf di continuer mission moom itam il faut yitte njaboot yi mu teg ko ci ñu niituwaat ci dundu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jikko yooyu nga xam ne moom la tabaxee siècle bi gën ci siècle yi muy sahabatul kiram ak mag ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy tiitaroo jikko yëpp leen tabaxee il faut ñu gëstuwaat ci dundam jikko par jikko jikko par jikko pour niitu ci njaboot bu ci nekk jéem a jël ci jikko yooyu ba ku ci dox ñu xam ne yow njaboot yonent bi sallallahu alayhi démb jëloon nañ jikko dëggoom sallallahu alayhi wa sallam ak amaanaam wóoram tey ñu war a waxtaanee ci izza ak azama mu mel ni yàlla sunu borom bokk na ci xereñam xereñam moo tax lu ne mu mu seet fa mu yelloo te ka jekk mu teg ko ci dafa jël ñaari ko muy tedd nga izza muy tedd nga dignité te mooy xam sa ak grandeur màggaay ak bañ lépp luy lu suufe ak lu doyalee ñàkk fayda seet ñi mu am ci àdduna ñëpp ñu nekk ay sang commencé ko ci yonente yi ak ñi leen doon mu nekk jikko yoo xam ne duñu tàggoo ak ñoom mukk amul benn yonent illa wa kaana azizan azima dégg amul benn nit yàlla boo xam ne lu leen ne jikko yi doon na ko ci yonente yi sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum sunu maam ko yàlla yokk leer واحنا بس بنت قصائدا واحنا إنا بني مالك من خير نسبته لا يعرف المرمى منا أحدث الرجل قد استغنى من الدنيا مطاعمها ذقنا المرارة ذقنا جودة العزل ملكنا وأنصر فلم نجد فيهما ما نستلذ به إلا الإباء وإلا صلاة الضرر هنا تنين يوسكي يجري صلاة لونيك من جمع سبحانه bu amee ci yonente yi yëpp am ci nit yàlla yëpp li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am kenn dabu ko ci suñu maam Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu dafa wax ne min kulli wasfin hamidin haza afala tafdilin rajaul baraya yawma muzdara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yaakaar ñëpp ëllëg yow am nee na bépp jikko bu rafet bu ñuy taggee nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma lañ koy tuddee lan mooy am amu tafdil grammaire dafa am lu ñuy tuddee am ala tafdil te mooy booy plus que nangam plus que nangam am ala loolu mooy bi buñ ne mbaax da nga naan moo gën a baax buñ ne dëgg nga moo gën a dëgg ci ko baax booy wax rek bu dee ci yonent bi doo moo dëgg woon moo baax woon mais da moo gën a ndax moo leen nekkal ala xuluqin azim boobu su ko defee xisaab nag dinañ ci ñëw waaye laata loolu dañuy leeral lan mooy xisa ci boppam te mooy tedd nga bakkan boo xam ne muy dignité ak xam sa bopp ne la yaa gën ci mbindeef yi boo xamee sa waroo ñàkkal sa bopp fayda waroo nekk nit koo xam ne fu ñu fekk sa xol tëf di tëf tëf ngir soxla bu fajuwul wala ku wóolul boppam bëgg la déstabiliser wala saay-saay boo xam ne daf la bëgg a wàccee ci sa principe moo tax bañ xam sa bopp am sa dignité xam ki nga doon ak li nga yor dafa nekk ci jikko yi nga xam ne l'islam toujours day woote jullit yi ñu jikko woo su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, jikko boobu fës na ci moom ay mbir yu bare bare te li